مالك بسيط طويل كامل منصرع وافر بن خرم رجش كوتيني peesekaay woy la ci arab daf ci am nag woy yoo xam ne boo naree wax histoire te mooy taariq te histoire foog nga tudda at foog nga tudda date foog nga tudda chiffre baxru ba du la may nga naan ida wa ishrina wala ida wa ishruna wala tisun wa tisuna wala tisan wa tisina du ko nangu day dem sa arum comme Maodo nag capable na xam na ne araf bu ne chiffre la mu bàyyi chiffre yi jële araf yi sunu abajada ñaata araf la alaaji gay gaa yi sunu a sunu abéchada ñaata araf la wét nun sunu boros vingt huit gaa yi nag gaa yi vingt six ñaata lañ leen ëppale ci boobu la ñu gëme dekkal nun ñoom ñu weddi ko waaw ñaari araf yooyu ñu leen ëppale ci lañ lay gañee ba ñu bokk gëm li ci kaw suuf ñoom ñu bañ gëm ne kenn du jógaat taxaw genn wàlli vingt-huit ñaata la quatorze vingt huit saar ñoo wàcc Madinatul Munawwara quatre vingt sept wàcc Makk nga boole ko am cent quatorze vingt huit saar yooyu wàcc Madina yàlla yemale ko ci junj la alquran day junj rek junj yoo xam ne Moustapha mi ñu dee lépp mooy xam lenn li ak waram kasfu yi gisa keroog ba yàlla wàcce wara ni waqara laawu nazan isa jaajaluha am su wasloo ngooguti wan na naa ko ok keroog ba aay ba bu wàccee yonent bi danaa def bu aay wàccee mu xool ko ne ko placé leen ma ko saar sàngam bi aay bi wàccee dafa oo ali na ko wàññal baqara foo amee soixante trois ci saar rofa aay bi isa jaaka munafiqoona mooy soixante troisième saar waaye ndekete booba aay bi day tànde nabi di ko won lene soixante trois saa ngay dund waaw kay da nga naan a ba je de he we we he pa ya ka la ma na sha fa da qa ra sa ta wa qa ve wa qa sh lif fokk fekk benn la arafu liif un lay cuy ba deux jim trois del quatre alphabet cinq waaw six racine sept ta tànk huit yanara dix quinze vingt laam trente mim quarante nun cinquante sat soixante ay ndégal soixante dix fa quatre vingt la quatre vingt dix quatre cent ra deux cent sin soo trois cent ta tombe quatre cent ñetti tombe cinq cent xadam dellu six cent dellu jitoy sept cent ta tànk jitoy huit cent xëy ndégal neuf cent chinara so tooy mille aba jaddu bi jeex si daa jimaari nag du jëli fëri si fa di ko indi te aba jaddu bi wax naa la ne vingt-huit la ngeen wax yàlla dafa ci jël quatorze lu ciy def quatorze foofu quatorze yi bàyyi ko nit ñi bomba yi ngeen di dégg ci lañ ko liggéeyee ci lañu defaree taax yi ci lañu defaree oto yi ci lañu def avion yi mu jël nag benn bi téete woo ko séddale ko ñaar quatorze boo ko séddalee ñaari yoon lu muy doon set ak set set yi mu wax ci alquran ci set yu jëkk yi ne lu ma neex def set yu mujj yi mu wax ci ne kenn mënoo la dindi li ma def set yu jëkk yi mooy fi mu sant borom alquran saar yi ci ubbeekoo alhamdu ñaata la set la am déet set yu jëkk yi def ko def ko tahmida set yu ci topp mu def ko tasbiha tahmida mooy cant tasbiha am mooy sabal set yu jëkk yi dafa set quatorze fois vingt-huit mu fa set yële sant ko boppam fàttee ci lu mu commencé fàttali nag sabegi kaaf lan xam ñaata nga am yëgulee tabaaraka alhamdulilah furxaan ak mulki ñëw muy set waaw set yi ci des nag mu sabba mu sabbale ko borom sabaa lillahi am na safi am na adit am na taxabuni am na jumaat am na ashri ñett yi sabbala ñaar ñi yu sabbi ula ñett ak ñaar juróom la nga dem ci subhaana si asra muy juróom benn nga ñëw ci sa bismi rabbika muy juróom ñaar firikati alxuraan nga yeewu ab comme xale yeeg njaboot gi mayetu la laxas leen fen déglu rawaan yaa ngi dégg yow rek laa déglu ko ñaataat la na bi am ñu yónni ko nee ma ñeent fukk ñeent fukk bu ca fanweer ak juróom-ñeenti jóge lu cay des
benn benn ah déet waaye bul ñaar fukkaati waay rawaan waay ñeen fukk la fanweer jóge na ci laa wax ak juróom ñeen lu ci des benn bi am at la at ñaata weer la fukk ak ñaar juróom benn weer ya topp ca Maodo wax na la fii quarante-neuf ans yu toftal six mois donc kon yonent gi six mois ci des kon bu doon togg àgg na ci xeeñ nag àgg na ci bu ci si si si yi xam ne kër geeg ñu ngi fi baax fi ndax passé na tànn ceeb passé sebet passé tàllaa léeg sóor dem nañu sax ba diisal waaye ñu tàkk tàkk teg lu diis toog di xaar midi parce que lu jëm quarante nga ne fuuf trente neuf yëpp du ko benn année ba ne siise fuuf yëpp ah nee nag booba nag la lumière yi nu boo gi ñëw min ba di taay ginnaaw neuf wala min yu toftal trente la am su ma sittati assuré yu toftal juróom benn weer boobu nu bëgg ak seen foofu la commencé di gént loo xam ne day mel ni lu ma gis ba cëkk raa kan fi laa ko soppi lam yooyu ni ñu ne alaaji Malick laaj ñu la foofu dañ ne kañ lañ ko yónnee fi ñu ko yónnee mu ne lan
وما تنقل الخطايا تظلم بلا وهم وصلي الجاهل في وجهي حمدا على ما أمد من مختار في القرآن
والله أرسله أرسله للعالمين في اليقين day nasab ñaari mafool am déet fenel bu dee yaqiin ñaari mafool lay nasab fenel bu dee laasim du def taadda fenel bu taadda benn mafool lay nasab Tamsin Mbodj te góor gi kenn du moom te doon woy bii rek ni mu ko mosee woy bii may bëgg a wax woy bii béyt bii ma toll déglu béyt bi ma toll rek da nga xeroolu ko wallahu arsaluhu fan lil alamina lan huddan rek wa rahmatan kañ bis ma daa jësum bila wa amin bàyyil ma alsaxir boobu ndox ma fóol la dina ba arsala yeble na kan laaw mooy faayil ji ku mu yebal dellusi ci arsaxir gi fu rasulullah araf fii abba jëdd yëpp alsaxir ci ëpp doole gisal booy jàngal sa xaleel ndéem jànguloo la saa ndax abba jëdd dafa am ñetti yoon yoon wooy gàggante ko ci matar shayi ak misbaa wal lisaanul arab boo ci bëggee xool gàgg am na jàngin boo xam ne moom ngay turwee gàgg ba ci téere ba bokk nag jàngale la saar nekki dégg leen nga bind suma tur ci liif baa raa liif alkubeer yaa mimara ëllee koon nga bind ko noonu nga def deux cent quarante deux ibrahima la parce que ra deux cent cinquante huit ra deux cent la mim quarante la ya dix la alkubeer cinq la ba bee la lif ga gis gi kooku muy ëltamun fasasun baw yanun latasun jarkasun xasaqun daala un raxasun bokku la nag ab ta sadia xanqada sara sasanta saa kooku la ñuy seete gar waaye nag pour jàngal xale alquran comme alquran leer la foog nga laxas dënn bi leer gi mën a tàbbi moo tax ñu leen wax a ba ja da ha wa ba mu xaw a niroog ab aj ABCD prononciation bi uute rek waaye a ba ja da maître ba ne ca classe ba ABCD a ba ja da a b w da balaa nga xam ne benn la nga dem ba ci K L M N mu ne kalamana sëriñ baa ngi naan ca daara ja kalamana professeur bi naan K L M N bindal liif abajad ba ba arafi baas jeex nga dugg ci dixième door a dugg ci centaine parce que ñett la li ko yàlla yàlla ba baa baas la li ko dara baa ba nu nar a gële dixième la li ko dara xaaf ba ci seen soto yi centaine la nga nga bindal ma nag ba abajada awala altaya muy dix alaaji gay fogal araf wala jiitu woon boole ko bu mujj yana raa mujjee yana raay dix dafay un boo ko boo koy jàng looy wax hayyun fogal ba araf ci topp di baag teg ko ci ta tànk gële lu muy doon kay fogal jiim gi teg ko ci ab lonk gi lu muy doon fobal deel gën a teg ko ci racine nga lu muy doon mu des ñaari araf yu kenn mun la tàggale muy huwa ci la secret yàlla bi nekk nag moo tax ñu jàngale xale abaja bi noonu huwa boobu ci nekk nekk وأرسل يبلنا كان راوي الله كان هو مصطفى فن للعالمين من في انجرلان قدام رك ورحمة كان من اسم دابان خمين أتمدنا جسل كارنتا جيم توا راسين ست لام ترانت آه واجي ah soxna jaw aji faatu jaw jërëjëf jot naa yóbbante tàggee sama jigéen di sama tante ma daan ko jàngal ci pikin ay at at ay sit naa a isatu njaay yàlla na ko yàlla may àjjana may ko jullit yëpp bi jaay si idil awalina wal axirina dafa mel ni ñu bare ngi jóg waaye daal maa ngi yeesalaat ne le douze na ngeen ma seet ci campement Ngékoox le treize la ñuy siyaare bàyyi li man saako ngeen toujours ñaare ba ngeen ma soxlaa ma fanaan fi kon rafet na bu ñu soxlaa it ngeen doxantu soriwul campement soriwul eh campement soriwul godorong la am na soowu mbaanit am na meew piir am na yàpp yomb piri am na it nag cere soo jàllee nga par nag teen ak Omar Fuuti yu baax nga fa loo ko ñaanee rek réer ñëpp daje nañ ci kon nag Issa Laay ñu may ko mu barkeelu xale yi ngeen jàppale ko bu jëlee waaye daal Serigne Kan waxal ma Sidi Moustapha ak Mansour ne tàmbali naa fi alxuraan bi ci olof maag Burhan Njaay sama doomi nijaay ju baax ji di sama loxo ñun ñaar rek la nag dañuy tëj de suur ba une heure de matin léeg-léeg ma ne ko buur sonn naa mu arrêté mu xiixata xiixata xiixat bi ñu yokkaat ngeen def ci ñaan te nga ne ko ne dinaa ko seet si insha allah léqut kon nag isaan nga barkeelu ak sëriñ bala jóge Kaolack kaar te am sie jox ko xale Tiwaawan yi incha allah buñ noppee mu jox xale Tiwaawan yi ñooy suñuy sëriñ di suñuy kilifa anamu jox nga ko gëft waaw baax na boobu bismillah laa ilaaha لا لا لا
Bye. رسايا والحمد لله ما يوشيخي ربه من أعوان خير الوجود له في للخير أهله مولاه أعوان من ربى بلا خلوة إن الوكيل أتأتاه أنا ألنا من أتت تخمفا وقيا يا لله
أعوذ.
منا بهمات أو وبحال ستربي جهنم المربي مغرب بالأخي يرجع دعوة.
من يسخ المريدين إلى الليل.
من كاسن أصلي بإيمان.
ونهي المرض إلى الليل.
قد كان معوى معه.
من مال الخلافة الخلافة.
وكان ديك الخليفة مالك لعل الخلافات يا ديك الخليفة مالك لعل الخلافات يا ديك الخليفة مالك لعل الخلافات أي مولا من لني شكركي نعلل الخلافات يا لني شكركي نعلل الخلافات
داق الخلفة مالك نعلل الخلافات أخذ ساهد في رزاته فتحوا وأتاه خدم مؤمنا الرحمن والجاه والجار له دمان مئنار مختار مهتمنا في سعة أرزها أو يرضى بمزرعة من فتحوا فلا يمازله يمازله.
بحر له لهم مدد مدد كنت ولا الجود جود حقا حقا من سخايا يا الله.
ولو هوى جود جوده الماء عود في بلدي من بحر لي أو أبد أبد.
حر من آتايا يا من غار أو أتباه الوبل وابن في- في آفاق وي- وي.
من آمن أرنا.
ولا أتباه الناس ندخل أرخى فيه جدوى وأرى.
من ما ترى من للرجال لله كف من كل شيء والمؤمن بهم والنور يغزى لهم ما ترى من من رجال لله لا كل كل شيء شيء والمؤمن بهم والنور يغزى لهم لله خمسة دارا أقول المؤمن لنا لا يفلح المدى ودعي في بدهوى وهو كل شيخ ارتقوا كل لاقي من فرد فردا من أدرة الخيب خبئين ما ربى أهلا له امداه كان كان يام يمضي تصرف رفئين لوي أم جحوي بادا توبا وبا وطوبا له في كل خطر من إمنا تاريخ لته محمد ما سيا يوبال أردت ياهو أسأل سيما منعا أخلاق تندو دعوه من البرايا يأتي ظلمة أفواه وهو فعين الليل ليل خلق وفي خلق خلق له محبة وتسيق وخلق ما هيا ياء يا ذلك الزمان تمما الخرم التي تجد شرفات وإلى إبادة وطوال وهو لبل الأسباب الصلاة تجر بنا بنا أبدا إن المنايل أبدا من من مزايا ياء فكل من في في خيام شيخي مجتهد مجتهدا لقد أتى أدراك إدراكما ما يهوي مهنا معناه مهنا بهر بحر فليل تخليد يدرك ما وراء ثور توريد إجاب لو كان يهواه لازم سبل لازم غار ونتجت الوالد شاف ساجد فانصر في فيه الدنيا وأخرى أخراه لازم سبل لازم غار ونتجت كتاب شاف ساجد فجر فيه الدنيا وأخرى أخرى لازم سبل لازم غار طالب شاف فجر فيه دنيا وأخرى أخرى أكرم به كرم كرما يا أكرم الكرم كرما يا هيلم العلماء علماء من تبي مغنى مغنى أتاه بيتك لك عند إن الباب يقرأ يقرأها وليس يهلم يحلم إلا إلا أنت من من آه من المؤلل أغلى على في المياسر ويترقي من كان خدر أجر بي وأوسع أفتاه ثم سالته وطال أمين خلف غينان ثم صلاة نيل أمين خلف غينان آمين ثم صلاة نيل أمين خلف غينان ثم صلاة Embalo minelo nech gorgi ثم صلاة Ya inelo nech gorgi ثم صلاة Anamado maligo Muhammad Bon Abdalai Bon Abdul Muttalib Bon Asim Bon Abdul Manaf بن خسي بن كلابو بن مرت بن كاب بن لي بن خالبو بن نفير بن مالكو بن نادر بن كنانة بن خسيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن ماد بن أدنانا إنما دو مالكو ay bakare daraman aram lo kuma cam sawa da farma job mi kan muhammad kan gi bindef mi ya sanga te sonal laaru ca san gima xirte sang bi tedd bi xellu ma ñu ma teranga jurey mbalam sa fen ko xellu yaa ñee digal di ñu defal di ñu nandaloo réew mi sa ndam du fi jóg jaa ci maw di yaa ci ko gàlloo yaa rafet gannaaw bari jom um nga loon ba jibakul si noonu ngay mën a mel doome gay dafa di la baaxoo naar yi naan ñu maalum summa salaatu wa mbooloo mi jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة
yéey jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة yéey jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة yéey jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة yéey jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة yéey jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة yéey jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة yéey jóg leen ñu màggal Cheikh ثم صلاة أتسليما إلا هو على الله خير البريات أقلك حياه وتوكل الله أكبر
يوم ظاهر من منين مدد